neex la ci biir far. dama dégg dama dégg muy yéenam. yaa ngi ne foo toog ba hmm. ah. dañ ne. dañ ne. Hmm. am na dossier yi ma jot naroon naa teg foto mais damaa laajte ba xam ne ba xam ko ba xam place am fii. Hmm. ñëw jàkkaarloo moom parce que dañ naa envoyé ak photo ñu ne ma mbay kii jugul ay sax. jubul dafa am benn kilifa bu mag bu nekk si ginnaawam moo koy indi jëlal ay kii di ko yóbbu ay Dubaï yóbbu ay Paris di yóbbu ay France parce que deful dara soo xoolee sax bitig bi doxul bu baax mais kooku moo moo moo moo nekk si suuf di ko jox. eew waa kooku noonu di ma jox tamit doo génn gën maa joxaat ndax ndax instant yi kala naa nag waaye doo ñëw joxaat ma. waaw kay nañ bàyyi sos nañ bàyyi sos nañ bàyyi naa bu yàgg yow hmm? dama tedd bu yàgg xam luy million xam luy valeuru xaalis lu ñu bañ a dégg yaa may dégg bokk nee la man dëgg yàlla pour dire vrai ñi xale yi lañ naan dama dama yàgg sonn xaw ma luy coono àdduna coono àdduna yi xale yi di dund xaw ma waaw kay lañ ah, ah, la fi génn Hmm? mais lan moo tax moom su déggee loolu dégg naa am na ay retour ñu ne da am far moom bi mu ko yëgee lan la lan la. dama am far avant may sëy wala bi may sëyee laa am. bi ngay am bi ngay sëy man mii ba bokkam baal sant. Hmm. xaw ma ah. waaw maa ngi nii toog ba léegi. puusuma paasuma musuma fay maa ngi nii samay goro bëgg ma nag. nolong ma wér nga. samay jëkkër nag. yow dëgg ñi dañoo neex. mais ah déedéet waaw mais kan nggak amal problem si si sejak jaay kesel xeesal man loolu fu juga. jógee loolu juga. Waktu jógee peut la rek peut être xam nga dañoo soxor bu cher nga am bu rek commencé rek yaakaar ni kenn ku alors que ça du dund la di dund. man mag naa loolu yàgg na. kon daa am ñoo xamante ne dañoo am jëkkër am fa di jaay savon. bëri na fi ah ñi jaay savon xaw ma ci kenn. Hmm. ma ci kenn. ah yoo xamante ne kii am jëkkër am fa am na jëkkër am na fa am jëkkër am na fa loolu rek ngay dégg. waaw peut-être seen ay jëkkër mënuñu. ñu mënuñu. Ah. loolu mooy secret bi. xale yu jigéen yi xale yu góor yi suñ suñu takkee ji jigéen su mënul ah, mais sa jabar jëkkër yow moom macha allah. mbay yàlla baan du ma ci wax sobe du ci wax man daal macha allah kon sa jëkkër man moom garaawul man fu mu nekk nii fii laa koy waxee ku jëkkëram mënul ah am naa ay produits yoo xamante ne dama koy jaay. Eh, eh. yow yaa jaay produit. waaw ku ko ku sa jëkkër mënul parce que loolu loolu dafa garaaw léegi doo am da ngay am jëkkër am fa loolu c'est pas c'est grave. c'est très grave boo taxoon ma gis la xam nga leeral ma. parce que fii laa koy am jëkkër am far yor naa gàllaaj bi. léegi ñëw si man waaw. di nga fexe ba seen yi mën. naa fexe ba seen jëkkër yi mën bañ wuti feneen euh, euh, bañ euh, ba ba bu jigéen ñi. dem dem feneen. waaw seen jabar yi di dem feneen. yàlla baax na mbay. li comme est-ce loolu moo tax muy génn ak doom ministre bi xam naa loolu saam produit waaye ne ki muy génn nag doom ministre non mbay am na imam barki Serigne Touba mbay mi maa koy xool chaque jour su ñëwee bi auto bi ngay wacce gadu koor bi muy andal ci rukk bi may may xalaatu ko na nañ tourné caméra bi ñu poser ko question yi ma wax benn par benn mbay kay dañ ma ko téré <laughs> ma wax len mbay benn par benn nu muy dundee oto bi ñu ko dik fi ni social moo leen bay rek publicité rek. affaire social yoy mo len mo ngeen wara bëgg dugg. waaw baax na mbay. social nga xam ne ci Amérique koo ko. dégg nga. c'est que kaay xam nga dañoo mën tuut sa nit duñu xam nit comprendre nga tey ku la si yaakaar la benn manquant benn benn ah, koo xam ne yorul dara ak yooyu noonu wante ñun ñuy dëkk ak yow xam nañ la bu baax a baax xam nañ la bu baax a baax soo demee nag ci xale jigéen yi nag ñi naan may manquant la ñoo ngi nax seen bopp lu leer ni midi laa leen wax. li ñu xam yëpp. tiktokeur yu mag yi di ñëw de. <laughs> yaa xam ne tiktokeur ñu. xew. ma moom damaa déggoon benn affaire si moom. Mhm. dañ ne dafa am jëkkër am far. Mhm. moo tax loolu laa doon leer loolu tax ma ñëw fii dafa am jëkkër am far. waaw kay si far bee koy jox muy ubbi bitik di jaay ay savon di jaay ay kii. mais léegi léegi am na jëkkër. non amoon na jëkkër dafa amoon jëkkër dafa am jëkkër nii. am ku koy doxaan si ministre si cadre yu mag yi. si cadre yu mag yi loolu laa doon leerlu. ah da nga dañ ma ko joxoon cadre xam nga defoon naa benn photo sama esthétique. Mhm. ne am na. Mhm. photo bu kii la ah, nii am na jëkkër. na jëkkër. mu si sëy ministre bi mu sëy. ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko doon jox xaalisam boobu noonu. nee leen nañ ko xaaree àllaaxira ñàkk na ko nga mbay ah. fii ku fi sàggan hmm. ñu dem bala te ku fi joxe sa xaalis te moomu ko yaa perte am jëkkër am far waaye am waaye fii lépp la am na fi lépp am na fi lu nekk mën na fee am mais xam nga moo am chance nit ki nga nga booy jiite nga koy jiite si lu leer ndax allaaxira mm-hmm. am na de mbay est-ce xam nga am na nit yoo xamante ne dinañ dugal seen moromu nit àjjana te duñ ko yëg ñu dem safara ah, pare dafa am beneen bitig xam ne gis nga loolu. ah non non loolu kon mooy beneen beneen. jëkkër la am tamit coow am de. ah bu génnee tamit ñu ne amaat na beneen jëkkër rek de. léegi ak parking oto bi. waaw ak parking bi. soo amee. waaw waaw suba soo amee nag nga ñëw ñu dem ci parking oto bi moo la wala laadu mi. defal lii ma xool ndax li ngay jaay baax. a jawar. wér ah wan ma dox dox <laughs> ah maam maam dafa maa mujjee ma sa wan ba fii parce que Serigne Touba ba ñoo ñoo xam ne waaw mais maam day jaay gis naa ko temps yi muy jaay dinaa mais xam nga comme man alalu jaamur laa du dëgg ah moom du wane ay poot kay laa eh, ah. eh, eh, mu ragalul mais maam day jaayu jaayul maam day ak kay lan lay jaay recherche mari la nekk. déedéet moom moom lan la nekkee ah, recherche mari. ah moom daa divorcé de jëkkër lay wër instant nii day wane lu ko neex. ñu ñëw ma taxu ko. lii loolu ministre bi nag. Ah. sama xarit bi fuuf nuyu naa la. maa ngi lay nuyuwaat. <laughs> fu sama xarit lan ko fa. Ah, loolu rek la. dama ko bëgg. loolu kese la. fu sama xarit nga. fuuf loolu rek la ay ca léegi man retour yu ma am après naa ñëwaat. information yu ma amaat ba naa ñëwaat te ko stable. en tout cas daal lenn nee nañ amul far dëgg. lenn daal laa lay wax mbay. pomme du moromu te kuy laax di jaay. te jaayoo sax sa bopp. yaa ngi nax sa bopp. di nax sa bopp ba jaaxaan di saw sa bopp nga naan non non sawuma sama bopp. yaa ngi si erreur de. dañ maa tooyal ndox. dañ maa tooyal ndox. Hmm. kaay leen si fii. fi ay sa bote soo bëggee lu baax nag. li muy évangélisation. sama yaay ji nee naa leen man jaay ma luy joxe cer wala luy joxe rew déedéet. utilisé ma benn top style di ko mélangé si. kan moo fi ah kan moo fi def loolu loolu daw ba ci ah, ko tëkkale bu ah. moo def loolu non non man nañ dëgg parce que bëgguma dugal vidéo ñu waaye damaa sonn si ay coow damaa sonn ñu man man daal fi mu nekk nii damaa sonn ay ay daal man. ñu may woo naan ma yaa wax li yow yow yéen kan moo wax kan kan ko def loolu. xamuñu de mais daal wax nañ daal joxe ku si waaye mu xool la gis si boppam nga jël ko yaa ko moom. jéem a tàkk. bal perdu la rek bal perdu la rek waaw. a gañ yaay nii di dem Auchan di jënd sucre de canne xam ngeen sucre de canne. maanaam sucre dóoru bu xonk bi. ça n'a rien ak sucre bii nii. Hmm. comme xam yàlla dogal na xam damaa jàng nag. léegi sucre de canne boobu la ñuy jël bëf ko ay sérum di ko wax gommage te loolu mënul gommé mooy yokk taux de sucre bi ci réew mi di jooy jabet yi ku ma weddi nga yow xam nga jàngat diwi tib nañu ubbi seen bitel gommage yëpp nga ñam. ñoom de ñu ñu may ay gam te yow mosoo may. damaa lambale bay may. Ah, waaw wér nga damaa lambale.

mës naa maye cinq cent naa maye mille gàmm. man a ba ngay di maye lu ma neex ci gàmm. mais ni ngay gis nga noonu mun nga maye ah. loolu laa lay wax naa la su la neexee nga maye. mais lu nekk daa am concept tey tey màggal Tuubaa bi su ñëwee dañuy am na ñoo xam say fidèle client mun nga leen di may xam nga voilà gàmm su ñëwee idem mais toog ni un bon jour ça manque dara xew ngay maye loolu yëfu dof la yëngul maanaan ma ne nañ bàyyi naxante bi xale bu ci romb ñaari cosmétique jënd sa ñetti tube sa benn diw naan la Nigéria Togo Canada di duur fii la ñuy dem Pikine bii buñ tax ma wax pikin bi ah yaay tudd pikin bii la ñuy dem ah la ñuy dem jënd seen ay produits du ñu nax arrêté leen ñun xam nañ lépp lu ci réew mi baax na nag hmm. te ngeen bàyyi sucre de roux yi ngeen di utiliser di naan comment di yokk too de sucre bi ci réew mi jabet bi bëri na torop bàyyi leen Auchan bi ngeen di doxantoo di jënd sucre de roux yi di ko jaxasee di naan gommage gommage gommage gommage dafa am base bu ñu defaree gommage. na neex duñ jóg si buru bara de réew ak cere xale yëpp réew nañ yow kañ nga gën a gis xale bu sol short amatul ci même réew xale yëpp a réew xale yëpp cere ndax gaamu dix mille francs waxuma nag ñëpp dañuy jaay gaam bu bon mais la plupart seen ay gaam baaxul dëgg yàlla lañ waxante dëgg am na xetu po yu may gis moom barki Serigne Touba ñu koy jënd damaa ne dañoo dof pour lan nena la bala nga jé sa xaalis su dugal kenn dama jakkalo clé dia xol carrément nit ki nan la mel ba paré nga doog ko jox sa xaalis nee preuve la bëgg hein ah, amul filtre amul dara ma ngi ni set wecc mais toog di jay jaay ne ñu len di nax arrêté len ba kon ba beneen inshallah wa bu ba yoon dañ mbay tubarakallah xam nga ne la waji doon wax lu neex du doy mm-hmm. dañ koy samp rek ba beneen yoon. jërëjëf te mbay dama bëgg. nga wax ñi gars yi seen seen icône a ngi nii bi moo nekk nii toog jërëjëf Mbaye. voilà Mbaye Mbaye yaa ngeen moom nag. ah, ah. voilà. waaw doomu ministre bi génn ndax yow. ah kon dégg nga ko. muy yéen a man information waa mais moom comme li ko gars yi di defee. dafa ragal coow wala moo tax man maanaam gis nga tubaab day wax la civilisation mm-hmm. mais moom da kaa boole. Mm. gis nga def pàcc ak organisé jaay. Mm-hmm. moo gën mbararararara ba suba jot. ah ah ba da attention. lu leer la yaa ngi bébé ku am kii ñu am kii. waaw dëgg mooy wala. man damaa arrière man sama àdduna dara ragalu ma ko. man bu ma demee ba da. ba ma demee ba tuddee sama bopp naajo si laa xam ne dara sa fa ma bado bada man damaa damaa ragal léegi fi mu nekk nii parce que attan ma seen coow seen coow dafa diis. non <laughs> parce que doomu ministre bi ngay génn bi ngay si parking bii. fii nii fii waaw ah, waaw. dama bëgg waxtaan tey. Hmm. si lan moo tax nga nga nga ay ay produits ngay jaay nii ah produits yi moom la gars yi di jaay mais. moom man man man foo jëlee produit. la classe gis nga gis nga ni yàlla def maanaam boo jaay lu baax sax wala boo koy wane sax yàlla ji lay naan kaay coupéel bul ko wane ca <laughs> baaxul ca ah, bu nekk lay duggee balaa ñeneen gis <laughs> sama xel sama xel <laughs> en tout cas sama xel la la mu moo jee doon way samp ah. daa war a ñëw wayaat ko fii yaa mun ñëpp yaa mun ñëpp non yaa mun ñëpp <laughs> eh. daa mun daa ko fere wala courant bee jeex wala dafa ko bëgg wala non yàlla ji yàlla ji moo bañ ñu ñu wane yenn yi bàyyi gars yi di tiit moo tax mu ne toppaj lamp di gisoo fii laa ah, ah, am na benn jaaykatu xeesal boo xamante na fu ma ko fekk courant bi coupé waaye bu dugalee vidéo bi Ayo, aku wag mo. Narinig mo Sama ka na nag... Hindi ako nun. Five mo na, sama ka. Mga lesiyare. Mga lesiyare. Nyari. Nyari video, dala mo defal waaye di ko aku appartement bu di rus ba dematuma courant bi dafa jeex non no. duñ duma ko aku dañuy tiñala Afrique Sénégal dafa bëri dañoo bëri ay tiñana courant bee jeex wala dañ ko ko nga dañuy naan dañ koy coupé mais loolay xaar mais lii nii lii kéemtaan xam nga tey jii nii boo dugg ci ay bërëb am na bërëb yoo xamante ne yàlla daa am ñoo lu mu leen may te place bi dafee bokk place bi place yu jinne la léegi courant bi ku wala wala non non jinne bi moo fay courant bi <laughs> bañ waxkat yi gis ah, ah, ah, waay waay wali sama xel ñaaw ay sa duggee ah moom day war ki na jigéen France waaye Ya baax aku courage yoo ko béy. non France moom da koo miin. waaw barki dem la jógee France barki dem la jógee États-Unis moom France Pikine la. waaw barki dem la la la la la bi ah. Kan weer bii ko xam dëgg tubay. waaw waaye ma noppi nettalikat bi nga noppi moom dama mën a noppi lu ma yëg mu li mbay wuy ma àddinaa ni mer rek. Mm. yaa dee oo yaa dee baax. nee naa la fii coupé wul bëccëg rek di nga coupé guddi. <laughs> noonu la kaa bi demee boo coupé wul sax yàlla coupé la. jeex na kaa bi noonu la demee. ñëppay coupé mm. ñëppay coupé. waaw fii moom bàyyi kenn liggéeyoo ci courant. Mm. déedéet da ngay jënd mu ñëw. jëndoo mu dem yoonam daa demoon rek publicité la rek yàlla baax na damaa bëgg yaag jaaykatu diw yi ngeen def collaboration ah ni mu demee yi hmm? kan moo lay inspiré ba nga ba nga ba ngay jaay diw. jaay diw ñëpp may jaay diw. trop trop trop mais nag y a une différence parce que am na ñoo xam ne nii tey dañ ko def par passion am na ñoo xam ne dañ koo def parce que gis nañu réerum jaay bi yaakaar nañu ay millions moo ciy génn. xam xam nga bu njëkk ba dañ daan wax bi aw Amina Poté xewee Amina Poté ba mu xewee. Mhm. ñëpp xale yëpp. yow animation laa bëgg xanaa xamoo. Mm. voilà animateur yu jigéen am naa Poté moo leen dofloo. Mm. comprendre nga mais jaay ko fa xeesali Mame Ndiaye Savon moo leen dofloo. dëgg la léegi yow kan moo la inspiré Mame Ndiaye wala Faye xaw ma kii beauté xaw ma eh, léegi sax àll bëri na daal yan ñoo loolu. man kenn inspiré wu ma man depuis 2015 ba léegi maa ngi jaay chimiste yu mag yi ci réew mi yëpp xam nañu bu baax a baax a baax. mais kenn xamul si réseau TikTok parce que xam nga ku nekk ak ni ngay jaayee am na ñoo xam ne nii si réseau non amoo ay ay vie kon kon non amul problème du affaire de vue vue jaayu nit comme xam nga l'essentiel nga lan la t'as une forte clientèle nga am sa carnet d'adresse bu baax yàlla na leen Mame Ndiaye kay moom oto école la war a tijji rek ah di dugal ñu inscrire mu leen di jàngal jaay loolu la war a def nekk di jàngal neex ndax Mame Ndiaye dafa neex xool ko rek da ngay daajee du dëgg waaw yéen moo ñëwee fan wala. fan mënuñu luñ koy fanwee c'est-à-dire. sama xarit fu nuyu naa la. <laughs> fu nuyu naa la sama xarit bu bees bi. fu sa xarit bu fu sama xarit bu yàgg la waaye daf may daf ah, su ma su ma teg mu ne lu tax doo wax ak maam Ndiaye lu baax lu tax doo ko waxal lu baax. waaye da koo sonal nag. maam Ndiaye doon naa ko sonal de man sama xarit la de. doo ko waxal lu baax de. parce que moo nekk si kaw moo tax. ku nekk si kaw. maam moo nekk si kaw maam. maam maam bu gars yi bëggee di gérer lañ koy seetaan après bu heure jaay jotee ñu ñëw jënd si ay sax mbay yow tamit nag. fu yaa dégg bu gars yi reetaan fu sama xarit la yaa dégg man waxuma man waxuma. reetaan ba doyal mu daal di ñëw gars yi di live muy muy muy wax lu neex ñuy reetaan mais nag bu heure jënd jotee nag gars yi dañuy ñëw si ay sa buti mi ñëw jënd si. yàlla ay sax. acca ñu continué waat moo la inspiré.

ah ah wéeroo. Hmm. Euh, euh, laajte yi euh, fu ñuy taxaw parce que fii càq yi livreur yi fi ñuy taxaw. fu ñuy taxaw hmm. ah maa ngi yow bokk koñ de ma wax wala ma noonu. tey tey tey est-ce que mën nga ñaata nga jaay anabon bi wala wala wala kii comme ni ko sa xarit. non mais xam nga fi defoon borom million ma jaaxle. sama xarit la sama xarit la yàlla jàmm yàgg yàlla yàlla yàgg macha allah dama ko bëgg borom borom borom xaalis bu bëri si man ci réew mi sax waaw surtout loolu daa wóor fii lay génnee xaalis am ñu topp ko maa ngi nii jaay ma dara waaw jaay ma jaay ma wóo rayaat ci réew mi euh, dem naa si Mame Ndiaye de bi mu génnee xaalis dama tiit mu génnee waat de de génn na ñaata euh, ñaata huit huit millions par jour Mame Ndiaye waaw par jour war na ma fekk mënoon fay dix millions yi taxawal ah, ma dem si kan eh, ay eh, eh, sama xarit bi boobu war na ma ñaata million artiste quatre-vingts millions si sac kooku ay natt la si sac la ma ko wan si sac kay la ko wan moo góor ko Sénégalais jàmbur la ma dem si kan euh, kii sama xarit un million ki ma mayoon téléphone euh, euh, ay Eva. Eh, Eva solution. non kooku dafa baax. la mu génne ay millions yu bare bare bare bare lii laay jaay teg ko si table ma ay otoom yu muy yu muy yu muy kii ma dem si keneen ki ki maam Ndiaye ne woon dafa dafa dañ ko tax si kaw mbay waaye nettali xeex la nettali xeex la ba fi mu nekk nii kooku it il faut ay sax yaa ngi moom yéen boo ko turandoo il faut ma ñëwaat ay dossier parce que moom bi maam waxee loolu dafa commencé am ay jafe-jafe naa ñëw waaw kooku parce que coup boobu dafa dal ñoom ñaar maa doon kii kii jël kii kii di wax kii kii di wax kii ba ba maam dafa soxal coup bu mu ko dóor dafa dal dégg dafa dafa dal bu mu ëpp boo fi nekk kenn déggatu ko ayca yow fi mu nekk nii ñëw naa si yow mbay gis naa nee na sa jëkkër moo la may départ ah waaw man moom laa noppi su ma mayee départ ku mu war a may départ ku du jabara jaaxle naa ci mim réew nag eh, wóor aw ma jëkkër am fàtte te damay ah, sëy ah wax de dama ah. na leer loolu taxaw loolu loolu maa ngi ko doon dégg ñu ne am na benn jaaykatu sama boo xamante ne fii la nekk am na jëkkër mais benn ministre mooy mooy koy moo ko rumaraat ci suuf moo ko jëndal bitik moo ko amal kii ku xees la am sàkkare yàlla am kii waaw léegi moo tax ma ñëw seet man xam nga su amee rek naa nax naa la nax ma jàpp la hmm. waaw ba kii waxtaan li leen il ma toog ak moom waxtaan ak moom. Mm. Eh, loolu lañ la wax. waaw léegi mm-hmm. jëkkër am kilifa goo xamante ne moo nekk sa ginnaaw di la financé. yow loolu nga dégg. waaw dañ la ko wax. waaw ko. Mm-hmm. ñun ay duubkat lañ yu mag mag kon bitig foo ko jëlee. ah waaw wér nga. man ma tedd démb judd ci million xam bu baax xaalis yaa ngi may dégg.